gannaaw waxtaan bi nga xamante ne nag am na ko ak ñi nga xamante ne nii ñoo yëngu ci mbiru njàngaleeg njàngale mi ci diwaanu Nguéniène kii di Alpha Samb nag daal di ne nag dimbale li nga xamante ne mooy ndongo yooyu li ci kaye ak lépp loo xamante ne dañ ko soxla ngir mën a waajal li nga xamante ne nii mooy ibbite école euh, nit ki doo ko balaa nga koy laaj lan la soxla ñu oo ko rek yëpp yaakaar ko rek ak ngay ni ñëw. toog af ñu fa beneen réunion ak ñoom sama bureau ñu xool ne lii lañu am soxla lii moom mun nekk ñu juboo ci ba d'accord ji loolu lañu indi tey muy cahier nañ 10 000 cahiers 100 pages ne nañu ay cahier de 48 pages 12 000 cahier de page pages 400 rames de papier parce que léegi njàngale bi léegi ay feuille léegi ay imprimante ay encre Eau de Javel ak euh, Madar. loolee tamit dikkaat na ci li nga xam te ne mooy projet yooyu nga xam ne am na ko ci diwaanu Nguéniène na lu jëlee fii li nga xam te mooy abri provisoire mais aussi li jëm ci wàllu ndox ak li nga xam te mooy wàllu santé ba tax na 300 millions nag lañ ci war a dugal te loole nag appel d'offre la ca def. waaw loolu moom euh, wax dëgg yàlla dafa xewi léegi bi ñëwee fekk nañ ci budget bi deux classes deux salles de classe lañ gars yi construit ci budget a fait des ak benn mur de culture la ñu waxoon def nañ ba am aussi quatre murs de culture donc loolu lancé nañ marché bi les travaux bientôt démarré entreprise bi léegi ñu xam ne entreprise bi gagné marché yi les travaux bientôt démarré. appel d'offre bi euh, c'est dans les lépp lañu boole parce que y pas seulement les murs de culture y a aussi euh, des cases de santé y a aussi euh, ay bâtiments réhabilité soo ko boolee mu ngi toll ci presque ay trois cent millions. li jëm tamit ci violence yi nga xamante ne nii dañ koy nemmeeku saa su ne si école di waaj a tëj ci yenn école yi nekk ci diwaanu Sénégal kii di Alpha Samb nag mi ngi woo parents yi ñu gën a sensibiliser li nga xam xamante ne nii mooy seen doom yi. mais léegi ak réseaux sociaux yi booy li xew Dakar moo nañ koy gis li xew Amérique mu ñu koy xam fii donc moo tax euh, peut sensibilisation parents yi rek wax ak ñoom gën a ñaax xale yi gën a ñaax parents directeurs yi par éducation bi ci commencé kër gi la commencé. 79 pour cent nag la résultat yi nga xam xamante ne nii la commune bu Nguéniène am daaw ci li nga xamante ne mooy examen yi te nag ren nag ñu jàpp sax yaakaar ne dinañ ko gën a ëpp nag gàttaaw effort yi nga xamante ne nii kii di maire bi Alpha Samb daal dina koy def ci année scolaire ren bii